kenn gisul sa bopp ci réew mi te jeunes yi fi mu nekk nii bu fekkante noonu gis nañ seen bopp kenn du jël gaal yi di dem kon nag nañu fexe ba ñun Dakar ñun sàmm suñu kàddu ñun ñu jël ko ñoo xam ne ñun ñooy ñan waaw loolu daal laa ci doon euh, indi di jéggalu ci kàddu yi asalaamaaleykum. ñu euh, continuer ba léegi euh, li nga xamante ni moom mooy réaction yi ñu continue li nga xamante ni voilà ñu continuer li nga xamante ni. waaw maa ngi sant jàmm mën nga ñëw taxaw nii rek pour caméra bi jël la mën na nekk. ñu ngi si jàmm bu baax mën nga ñëw taxaw nii rek pour caméra bi jël la. quelques secondes la nga baal ma ko rek xam nga da ngaa sañca tamit li nga sol dafa rafet. waaw sama. yaa bay ngi lay ziar. ñoo ngi delloo euh, maa ngi gis yaa ngi reetaan sànq ba léegi. dagg kontaan rek am mbégte si bis bi. yaa ngi sant rek di gërëm di ñaan yàlla may ñu ndax. Euh, ndax da am confiance. wala da nga tiit parce que léeg-léeg nit day reetaan fekk dafa ah, tiit am si confiance bu rëy rëy nag waaw gëm suñ bopp rek te xam ne sa kanam rek ndam li may moom day dem si kanam rek lañ jëm incha allah. mais est na yoom dina yomb parce que ñëpp xam nañ ni bi muy ñëw bi muy doon gagné Ndakaaru doomu ndayam wala ex doomu ndayam Ousmane Sonko moo ko jàppale woon tey mu war a dem moom kase war a xëccoo national liste national. day dem ndax liggéeyam dafa rafet nit ñi dañ koo gëm gis nañ liggéeyam ak taxawaayam si ak biir Dakar Sénégal yëpp dañ koy jàppale dañuy ànd ak moom dem ba day am waaw day am ndam. day am day mais coalition bi dafa bëri ay ay tête mais euh, ñeneen ñi nee nañ ay tur rek la bëri waaye nag ci côté élection ñoom ñëpp daanaka gagné wuñ dara. dëgg la dëgg waaye baat moom day am day am ndax dafa gëm boppam gëm li may def loolu la ko nit ñi nawee moo tax mu jotoon si mairie Dakar bi te kàddu yooyu ba léegi fi mu jàppoon a ah, bi mu gagné ba léegi a ah, ah, dañ daf see am taxawaay bu rafet ñu am si taxawaay bu rafet. tey moom Abass Fall war a jàkkaarloo Abass Fall nee na moom moom Dakar. a ah, de day wax lu ka neex rek ba baata ñëw lépp mu ngi ci kanam nañ jàpp rek lépp day baax. d'accord ci kanam incha allah amul benn problème. voilà euh, ba léegi ba léegi euh, mbokk internet yu euh, Sen Teranga TV donc ba léegi mbokk internet yu Sen Teranga TV dañuy jël li nga dañuy continuer jël li nga xamante ni moom mooy réaction yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk di taxawal. yaay booy maa ngi lay ziar. jël naa ñoo ngi si jàmm. jàmm nga woote waa waaw jàmm laa woote. mais euh, naka ngeen di waajee élection yi tey lancement officiel bi tey la donc lan lañ mën a xaar. lancement officiel bi xanaa xaar rek ñu mën a préparer dugg si campagne bi bisimilah rahmaani rahim gunge suñu leader yi ci kàttanu yàlla ñu dem ci élection yi ci jàmm ba sàmm sa gàddu. gagné élection yi loolu laay ñaan yàlla. Samba Sakkat est-ce que mën na am dara parce que euh, boo xoolee élection yi passé daanaka ñoom ak Ousmane Sonko ñoo àndoon pratiquement xaaj bi yëpp coalition bi ñoom Ousmane Sonko ñoo àndoon est-ce que jàpp nga ne fi changer décision bu gaawee noonu sept mois. ah waaw Samba Sakkat dina am dara kay ndax élection présidentielle ak législative du benn loolu question de nit la nit ku nekk ak sa base te député yi dañu am base nit ñi fi nekk dañu am base jàpp naa ne Samba Sakkat day dem ca kaw incha allah. tout à l'heure merci beaucoup. mais mais Barthélémy Dias Ousmane daaw ci heure bi sama doom ndey sama xarit tey ñu war a jàkkaarloo ku nekk gérer sa liste nationale. mais loolu politique la politique ñu àndoon démb mën nañoo tàqali ko loo gis ci àdduna rek. tey ànd mën na am ëllëg tàqalikoo mën na am comme famille yenn saa yi dañuy ànd bu ëllëgee ñu jàppante bu ëllëgee ñu àndaat loolu mooy àdduna. kan moo kan moo sabab euh, divorce bi kan moo sabab tàqalikoo. waaw loolu nag moom jotuma ci euh, am lu leer ñoo ko gisandoo ñun ñëpp. yaa neen baat baat moo moo war soom. li non ko ni nga ko gisee rek laa ko gisee franchement. mais baat warul. ma ni ni ko gisee laa ko gisee. waaw gis nga ni baat ma ni nii rek laa ko gisee. nii nga ko gisee <laughs> waaw. voilà ñu continuer. voilà mbokkoon seen voilà mbokk internet yu Sen Teranga TV donc bu leen fàttali ba léegi ñu ngi taxaw euh, ñi nga xam <laughs> voilà sama euh, voilà ñu ngi euh, xaar nga xamante ni moom mooy euh, la présence de Barthélémy Diaz d'un moment à l'autre voilà comme ni ngeen ko xamee d'ailleurs dañuy jëmee see rek jël ay jëm voilà dañuy continuer li nga xamante ni moom mooy direct bi mais également déplacé wu jëmm jël li nga xamante ni ñun ñooy euh, mbokk internet yi donc mën nañ xalaat sinon d'un mois à l'autre li nga xamante ni moom mooy euh, Barthélémy daal dina daal di dugg si donc euh, bu dugg see rek dañuy xool li ñuy sinon jël li nga xamante ni moom mooy réaction ñi nga xamante ni ñoom ñooy mbokk internet yi donc voilà voilà ñi euh, voilà xam naa nag li moom mooy euh, mooy tane salaamaaleykum yaay booy maa ngi lay ziar. maa ngi yàlla na si jàmm. maa si jàmm. alors tey lan ngeen di wax ci euh, woote bi ndaje bi. ah xanaa kontaan si rek ñëw wuy si ma ne xanaa kontaan si rek ñëw wuy si sunu président Barthélémy Dias ak ñi mu àndal ñëpp ñu kontaan si daal moo tax ñu ñëw fi jóge ba Cambérène 2 lañ jógee. est-ce que jàpp ngeen ne Barthélémy Dias dina am dara. bu soobee yàlla ndax ñu ngi si gannaawam dina am dara de incha allah. mais mais Barthélémy Dias Ousmane Sonko sama doomu ndey sama xarit nga tey ñu war a jàkkaarloo ku nekk jiite sa liste nationale jàpp nga ni man Barthélémy Dias est-ce que jàpp ngeen ni na am dara ci kanam Ousmane Sonko. bien sûr day am dara kay. ci naka parce que moom day liggéey si dëkk bi baatu Barthélémy day liggéey day jàppale néew di doole yi te lépp lu askanu Sénégal bëgg si lay taxaw. d'accord voilà. Euh, tata maa ngi delloo ziar lu bëri si jàmm. sant ak ah, rafet na merci. ni nga ñëwee ci bés bi quoi. waaw sant mais dafa mel ne nga moom nga ànd ak benn confiance waaw euh, dañuy sant suñu boroom lu bari confiance bi mooy waral ni ku ànd ak euh, ndaanaan dangay sant suñu boroom ndax baat ku ànd ak moom euh, doo ragal ndax ndaanaan la bëgg na réewam te jamono ji ku soxla ku bëgg sa réew lañu soxla bëgg sa réew nag dafa bëri te wute te Bart li muy liggéey ku ko xool xam ne bëgg na réewam yëkk na leen safoo na leen faale na leen moom dafa xeex ba xeex jotee Barthélemy Dias dafa xeex ba xeex jotee liggéey ba liggéey jotee kon gisuma ku gën a bëgg réewam yàlla na ko yàlla fal cat te may ko ndam lu rëy te xam ne boo amee ndam réewam am ndam bu amee ndam réewam réewam am jàmm kon ñu ngi koy ñaanal lu bari bëri bëri bëri Barthélemy Dias ndax ku ñu bëggal suñu réew mi lañu soxla ak ku ñu ko liggéeyal macha allah yàlla na ko yàlla fal cat te may ko ndam lu rëy ak ñi mu àndal ñëpp incha allah rabbi euh, voilà ñu continuer jël réaction yi euh, mais yaay booy mais yaay booy dama gis ngay wax sànq ba léegi lan la tiit wala dama gis sànq ba léegi. non dafa dafa may laaj ma ne ko ñun Bart la ñuy topp. Bart ngay topp waaw waaw. Bart Bart Bart rek rek ngay topp. Ah, la de. coalition lañ dem est mën na am dara ci kanam Ousmane Sonko. incha allah ci kàttanu yàlla loolu wax bu yàqu la itam sëñ bi loolu boo ma ko laajee sama damay mer. Ah, mais gars yi nee nañu euh, moo ko jox maire Dakar. moo ko jox maire Dakar su fekkee ni moo ko jox maire ba dina wër bàyyi ba ba ba ba ba élection yi ba bis ba bés ba di nga xam ne lépp dëgg la wallaahi. mais mais six mois wala sept mois ci ginnaaw sama doom ndey sama xarit tey ñu war a jàkkaarloo ku kan moo war moromam. xamoo ki war moromam parce que maa ngi yow bu fekkee dañoo dugg ci biir néeg wax li ñuy wax tënk li ñuy tënk nga génn di nettali kon kay xamoo ku war moromam. kan moo nettali ah ku nettaliwul ah gas gas bi nga xam ne fu nekk galo rek lay woote nee na ki nettali kay xam nañ ko mooy kii xale yi lépp buy génn woo xale ne maa ngi dem gaaw xale génn leen ngeen deewi kookoo kookoo war. moo ko nettali. mais mais mais kooku suba moo wootee moo wootee Dakar Arena. waaw bu wootee Dakar Arena ñun moo xam moom la rek ñun lii ñun ñun lii moo ñu ñor ñun lii Matt mi woote fii coalition bi moo ñu ñor nit ñi sonn nañu xaalis amul demagoo fenn demagoo fenn sonn bay bëgg a dee ñëpp ngi sonn boo demee marché HLM kenn jaayul dara barki dem bi ñu ko def fu ñuy jaayee or kenn jaayul dara xale yaa ngi bëgg a dee. ana ñu doon wax Sonko Sonko ana ñu ana ñu tey. non dama leen añu tey. mais ñoom lancé nañ seen seen cagnotte de xale yaa ngay participer de. yan xale xoolal xoolal sëñ bi xam nga lan la bàyyi ba bés ba rek waaw incha allah ci kàttanu yàlla ah lépp dina leer. Abass Fall nee na moom moom Dakar mi ngi di doxantu di doxantu. non man soo may wax danga may wax waxi Baat ba ma waxee waxi man sax man. mais moo moo jiite woon seen seen seen moo moo àndoon ak Baat. ñun déggoo li wax wax ma waxi Baat man Baat ma ñor. Bart ci boppam ba ma waxee waxam daal tontu mais keneen ko ma wax du ma la tontu. tekkaaral bi Bart nekkee boobu ba léegi lu xew. mais tekkaaral bi du gisoo ku gis boo fortune Dakar Bart rek ngay gis tekkaaram gi yëpp boobu mi ngi togg toggam ba mu ñor gisoo li mu def ci dëkk bi xanaa li mu def Dakar gisoo ko gis na ko gis nga école yi gis nga pavé yi gis nga armée yi ah gis nga jumaa yi gis nga dëkk bi ni mu leere kon xoola laajal waa Masaalikul Jinaan waa jeex na tàkk ak solaire yi ñun Bart rek la ñuy topp moo leeral dëkk bi. yow maa ngi wax ngay sànni sa kàddu wax yow bu dee da ngaa ñëwee doo wax ci micro bi. waaw si ñun ak maa ko nag. parce que ki ñu àndal du ragal muy Barthélémy Toye Dias ñun dañuy wax am nañu naan le maire de la maire de la ville de Dakar mais pour ñun c'est le maire de la nation mooy maire xam ne mooy ñëpp ku si jàkk moom ngay woo mu taxaw la. lii mu ñeme moom kese ma ko ñeme si maire de la ville amul keneen ku ko ñeme Bart fi mu jëm xam na ko te ñeme na ko. Batt bu toogee ba def li muy def tey fitam moo ko may du lenn mais baat ba muy am fit depuis la jeunesse bi muy ñëw si jeunesse socialiste la fit bi fekk na mu indiwaale fitam jeunesse socialiste bi ñu xamee woon baat ba tey ba tey noonu la mel amul dara lu soppeeku si moom dara changé wul waaw. dara changé wul comme sànq maa ngi doon laaj sa xarit bi tey mu wala jàkkaarloo Ousmane Sonko parce que moom moo jiite liste nationale coalition sàmm sa kàddu ma Ousmane Sonko est-ce que yaakaar nga dina dina mën a dina ko mën a. bañ a mënal dara Ousmane Sonko bi mu doon génn di dem si tournée si Sandaga bàtt moo ko téye si loxo yóbbu ko Sandaga yóbbu ko université fit bi mu am tey bàtt ko may bàtt moo ko may fit bi moo ko njëkk a yóbbu Sandaga yóbbu ko université. bàtt ba mu tegee combat bi la ko Macky Sall ñeme. waaw ah, mais ñenn Ousmane Sonko moo ko jox maire. de loolu ay wax la rek bàtt bi muy xeex pour maire de la ville du tey boo xalifa ak si kaso bi ñun bii xalifa naan deux mandats la def si maire bi pare ñun dañ jàppoon ne le futur maire prochain futur maire sa bàtt. ñun suba Dakar Arena la woon. moom la constat. kañu du xale yaa ngay participer. waaw ba tey rek moom bu ñeme woon du laaj participation parce que am na caisse boo xam ne da waxoon da koy éliminer parce que riba mais da jël si caisse noire boobu def bu fekkee ne am na fit bi ñun ñu kenn dërëm ñun dañuy dem ba jeex ñun dañu am gëm-gëm am conviction. mais sénégalais yi ko voté tey ils regrettent parce que tey am na mettre na ay société en chômage yoo xam ne dañ leen tëj dañ ay parents famille def leen en chômage jël la jeunesse def leen en chômage am na yoo xam ne dafa ñaaw si réew. te nga woote woon lu euh, benn mbir nga woote woon pour jàppale jeunesse bi pour ñu liggéey. bu ñu jëlati bañ a jëlati gaal bi bu toog Sénégal liggéey mais loolu yëpp gisuñu sa si six mois yi enfin euh, déception totale daal. ñu xaar Barthélémy Dias. incha allah moom la ñuy xaar. lan daanaan. <laughs> voilà <laughs> d'accord. waaw dañuy continuer euh, mbokk ak seen audio Sen Teranga TV. kon ñooñu. voilà di nekk euh, mbokk yi seen teraanga dañuy continuer euh, ba léegi li nga xamante ni moom mooy euh, reportage bi waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy partisan wu soxna si maa ngi lay. ñu sol daara ne doomu ko jot. ça va. si li merci beaucoup. alors nan ngay wax ci bés bi. ah bés bi dañuy wax alhamdulilah rabbil alamin parce que boo xoolee jour àjjuma bi ak temps bi ni mu xatee ñëpp consacré ñëw. fekk se li nga xamante ne nii mooy conférence de presse sàmm sa kàddu donc dañuy xam ne sàmm sa kàddu am na ndam. donc coalition ban ban leader ngay topp si. man Pape Djibril rek laay topp. Pape Djibril Fall ak ñoom ñaak ñi mu ko àndal ñëpp aussi. waaw parce que ku xam Pape Djibril xam ne ndaw la te ndaw bu loxoom setee mu mën a ànd ak mag ñi waaw ki ñu jiital nag muy suñu frère di suñu soppee di président Barthélémy Dias ñu nañ ko yàgg suivre muy koo xamante ne nii ku am jom ku waa Ndakaaru bëgg. Barthélemy dafa bëgg waa Ndakaaru mais waa Ndakaaru ñoo ko bëgg donc ñu leen di ñaanal rek yàlla may ñu ndam lafal ñu cat ba le soir du 17 novembre rek coalition Sàmm Sa Kàddu nekk majorité à l'Assemblée nationale incha allah merci. <laughs> voilà ñu continuer euh, mbokk internet du Sen Teranga TV ba léegi euh, suñu euh, reportage bi mais également gis ngeen ni partisans sinon partisans yi Tata maa lay ziar. ah delloo ziar. Tata xel mu dal nga toogee nii damaa bëgg rek sama cameraman nee na nga nga nga sama cameraman nee na nga sigitu damaa kontaan rek ci Barthélemy Diaz lii ñu sumb yàlla nañ ko eggaleeg jàmm ci barke Seydina Mouhamed te ñu am ci ndam nag yàlla nañu yàlla may ndam le 17 yàlla nañu yàlla may ndam ndax mi dafa def loo xam ne ci Dakar gi neew ma benn maire def na ko fi de gën na ci Khalifa Sall kon tey ji bu dikkaatee taxawal boppam nii dinañ ko jàppale yàlla na ko yàlla sàmm ba yàlla may ko ndam ci barke Seydina Mouhamed loolu rek la ñuy ñaan yomb a jàkkaarloo Ousmane Sonko. loolu ñun waxuñu waxe Ousmane Sonko xam nga lu tax waxuñu waxe Ousmane rek ma wax la waxuñu waxe Ousmane Sonko pompiteer ak Angleterre xam nga ne bokkul. pompiteer ak Angleterre xam nga ne bokkul. kuy pompiteer xam nga man tudd ma turu kenn gaaruwaa. kan mooy Angleterre kon. Angleterre mooy Barthélemy Diaz waaw. kuy pompiteer kuy pompiteer. nañuy ñaanal ndax ba muy jóg kenn jógul waaw ñu jël nag jabaliser ko boole kook nit ñi waaye dëgg kay mujj. ñoom defaguñ fi ñetti weer juróom benn weer waaye gis nañ ñëpp na xam nañu rëccu nañu waaw rëccu nañu bu baax yàlla nañu yàlla dimbali rek ba ke Dakar Arena la woote suba de boo wooyee Dakar Arena loolu moom moom la concerné ñun fii la ñu woote ñun fii fii la ñu woote moom am na lu ko ñor di woote Dakar Arena dem ca ñee di tëmb ca ca fleuve ba moo ëpp importance di woote Dakar Arena ñoom ñoo nekk ci nguur gi moom opposé la war a bàyyi moom état moom moo nekk ci pouvoir dafa war a bàyyi opposition bi mu nekk nii ñi du ci génn waaw loolu la nga ne day opposé wu. day opposé wu de moom dafa mal ni ku nekkul ci nguur dafa mel ni ku nekkul ci nguur moom opposition la nekk rek na ci nekk rek bañ cee jóg ñun daal ñu ngi ci li ñu nekk rek yàlla nañu yàlla may na wasalaam loolu la ñu amoon lu ñuy mais mais mais euh, Ndakaaru nee nañ Ousmane Sonko moo ko jox moo ko jox maire bi. loolu wax wax moom moom moom li Ousmane Sonko def ci moom moom li Barthélemy def ci moom moom du ko wax moom xamul dara Barthélemy ko doon tette Barthélemy ko doon tette. wan ko fi muy teg tànkam fi muy jaar ba tey jii lii am moom na sant Barthélemy moo gën mu di ko xalab sant Barthélemy moo gën mu di ko xalab waaw wasalaam. yaay maa ngi lay. maa bu baax. yaa si jàmm. sant bu wër a wër. sa tagal rafet na incha allah. jëf Barthélemy Tuy Dias rek ak Khalifa coalition bi ñu àndal nii. mooy ñu neex a xool macha allah nga xam ne duñu tas yaakaar duñu fecc kóllëre. te nag ñeme waxu dëgg mooy kàddu suñu kàddu ñoo ko moom. war a war a war a war a lijjante waxuma la Ndakaaru de Sénégal ba mu neex ci kàttanu yàlla barki Seydina Mouhamed waaw. mais yaay booy xëccoo bi est-ce que xëccoo sax dina fi am ndax ñenn ñi jàpp nañu Ousmane Sonko muy borom Sénégal. c'est que sénégalais dañuy jaawale référendum moo amoon ñëpp ne na na na na dem ñu indi nag Macky jox ko pois euh, patate chaude moom moo ko dal nii parce que Macky da ko jox réew mi. attanuñu réew mi ñoom daggkatu juuti lañu xamuñu dara ci àdduna lu dul dagg juuti kese ñoom mënuñoo lijjanti Sénégal parce que Sénégal bi ñu fi nekkee ba léegi wax dëgg yàlla jël yow mosuñoo gis nguur bu ay gaaf démb lañ wax bato tëmb na ndox lag lag ba tàqalikoo naa dugg ci biir nit yi accident yi bëri nañu El Malick moo ne woon ne moo waxoon Mansour Faye démissionnel moom moo war a démissionner parce que gis nga accident yi am léegi c'est diamétralement opposé li kenn mësu ko gis aay nañu gaaf nit yi sonn nañu ñun dañu naan lekk ba suur naan ba mandi léegi gisatuñu dara ah mais est-ce que ñu bëri dañu jàpp ni jamono bi Ousmane Sonko wala sénégalais ñu fay changer décision ba jël majorité bi di ko jox ku jéggi xam nga moom dafa am lu mu waxoon dafa ne woon opposition bi nañ leen jox kon nag jot nañ jox ko opposition parce que moom tële na xamul munul arrogant nañu ñoom li ñu xam xoolal lu day ni ministre de la femme taxaw di wax naan ñoo tey bu dee yaa lekk ñoo tey xaalis boobu lañ bëgg a rawale dem campagne ko moo tax ñu naan dañu ubbi cagnotte ñoom ku leen xool xale yaa ngi dagg xale yi réeroon yëpp takkoon seen bracelet yi ñu ngi koy dagg kenn xamul leen kenn xamul parce que dañoo naxoon sénégalais yi bi bi fi ñëwee la mbënd bi gën a yaatu la xale yi di dem géej di dee macha allah macha allah ñii daal yal na leen yàlla euh, wàccee ci Sénégal ci jàmm ak salaam législative ñu jël ko ci kàttanu yàlla nga xam ne Barthélémy Dias mii de dañ ko dénk Mermoz mu wone mu wone preuve ñu jox ko Ndakaaru mu woneeti preuve ku feebar mu faj la ku ñu génnee sa kër mu mu mu mu jox la xaalis nga ku ku muy yóbbu nit yi di yóbbu nit yi màkk di di def action nag bu kenn xamul di dafa tali bool boole pat ak organisé waxul deful dara onkul paasul ñoom nag ñoo am problème gis nga Barthélémy Dias mii dafa mbappat ci politique moom dafa xam politique moom moo tax Sonko ñeme ndax moo ko doon moo ko doon wax sama doomu ndey di ko yóbbu di ko teete lépp fii la ñu fekk tey jii nag dafa beew ba foog ne waaye gis nga ku ku naagu ñu dab la te buñ la dabee rek nangu li nga yor Dakar Arena la woote. Dakar Arena na ko woote moom moo tal woote Dakar Arena ak fi réew mi toll mën na mi ne Passaro Kédougou di toj Kolda di toj ah Tamba di toj euh, mu naan damay woote Arena pour pour pour campagne moo ko tal ñun de woote wuñu woote wuñu campagne xam nga lu ñu woote jël jël Sénégal législative bi jël ko majorité bi teg ko ci loxo Barthélémy Dias Sénégal jëm kanam. Euh, cagnotte bi nag ña nga ca 26 millions. ma ne la déggoo li ma la cagnotte bi cagnotte ñoom ñoo tal cagnotte cagnotte boobu nañ ko defal waa ñi ñi ñi nekk ci ndox mi di tëmb ñi nga xam ne amuñu sax fu ñu fu ñu fanaan ñu ngi fanaan ci ay teraas ñooñu nañ leen jox cagnotte bi moom moo tal xam nga moom yëfu bandi rek lay def waaye fii lay fekk sénégalais sénégal kenn ko ndax ñaar yoon je vous en prie. grand malaise. Hmm? non alors ñu continuer ba léegi euh, jël euh, réaction yi nga xamante ni ñoom ñoo fi ñëw euh, mais grand malaise. delloo naa la ziar. bu baax. ak communicateur traditionnel. non non leaderu coalition Sàmm Sa Kàddu. ndax nga gisee euh, tey woote bi ndaje bi. waaw ndaje tey bi ndaje Sénégal parce que doomi Sénégal ñoo bokk wuy si Sàmm Sa Kàddu leader yi nga xamante ne ñoo méngoog jamono nekk ay ndaw et am jaar-jaar am dundu am expérience kenn ku nekk ci ñoom prouver wane sa bopp. ci landerneau politique bi ñu aussi am yaakaar ne bu baax a baax incha allah que législative yi danañ jël raw gàddu yi bu neexee yàlla. mais su naka yan levier wala sinon nan ngeen mën a jëlee raw gàddu gi parce que sénégalais tànn nañ 54 pour cent jox ko sénégalais si 54 pour cent ñoom ñoo tànn président Bassirou Diomaye Faye est-ce que vous pensez que nit ñi mën nañ changer avis euh, ci 6 ou 7 mois. évidemment que mën nañ changer avis te aussi bul fàtte ne que 54 pour cent pour cent ñi mën a voter. Sénégalais, ils sont 18 millions d'habitants. ñi voteel Bassirou Diomaye Faye ils sont au nombre de 2 habitants kon tey jii bu fekkente ne raw gàddu yu mel nii am na diggante bi li ñu digg woon motaluñ ko déception am na suñu doom yaa ngi dee ci géej gi accident yi ñu ngi koy gis rawatina jafe-jafe yi nga xamante ne am na ci jamono bi yëpp kon am nañ yaakaar ne bu ñu demee ci jongante législative yi incha allah mbetteel bu rëy dana am jëmale ko ci sàmm sa kàddu mu neexee yàlla. alors euh, Fall mi nga xamante ne moo nekkoon directeur de campagne yu euh, Barthélémy Dias tey muy xëccoon Ndakaaru ak yéen naka nga gisee est-ce que challenge la si waaw kooku moom euh, du ma sax tudd turam waaye lenn rek laa koy wax euh, bu mu jéem a méngaleeg boppam Barthélémy Dias ndaxte Barthélémy dafa am jaar-jaar ci politique. nekk na maire Mermoz Sacré-Cœur nekk na vice adjoint au maire de la ville de Dakar nekk na tey maire de la ville de Dakar ba pare it ba mu toogee ba léegi déggaloo leen benn yoon mu wax. mu ngi prouvé mu ngi doxal te ku xool ndakaaru nu mu soppee koo xam ne carrément que Barthélemy am na jéego yu am am solo yu ñu fi jot a teg léegi nag boo demee di ko méngale koo xamante ne ab stagiaire la man wax dëgg fa daf may xaw a jaaxal. na ñu ne euh, Barthélemy Diaz Ousmane Sonko moo ko teg ci maire euh, yàlla moo fi teg nit ñi même Diomaye sax yàllaa ko fi teg ndaxte Sonko bu doon mun na ko fi teg mu teg fa boppam kon nañ xam ne que sunu borom mooy dogal et puis ñun ñëpp ñu nangu dogalam te am yaakaar ne incha allah que assemblée danañ ko gagné le 17 novembre bu voilà ñu continuer ba léegi euh, reportage bi mais euh, Ousmane gis nga rek ñu wan leen ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, sénégalais gis nga suñu yaay booy ñoom toog boo xoolee salle bi pratiquement fees